asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu euh, mbokki abonné yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp ku si nekk si turam nga santam di leen ziara euh, di leen wax ne tey dañ leen indil secret bu yéeme yéeme yéeme yéeme bu am solo ni ngeen gisee nii xaalis bi ngeen di gis nii ngeen gis nii kon ku ko gis day xam ne lii day dox si wàllu fidda fidda nag bu ñu ko waxee moom mooy xaalis euh, pour ngeen mën a jëfandikoo secret bi na nag. sart yi nii lay demee euh, da ngeen bind asbiyallahu kun bisimillahi rahmaani rahim ngeen bind fatiha ba wala daalin amin ngeen bind xaatim bi ngeen gis ni si digg bi dañ def fidda si biir def si chiffre cent soixante waaye da koy bind xaatim bi da ngeen koy bind cent soixante quinze fois ginnaaw boo leen ci pare incha allah da ngeen jël saafara ci ngeen def si cent soixante quinze pièces bu ko defé ngeen sangoo ko 175 jours ah mbokk li de ko gor goru ba def ko de rabbi xaliss bu bare bare bare bare bare ni ngeen gisee ni xaliss bu bare bare bare bare bare dina dugg sen loxoy bu soobee yalla waaw xaliss bu bare dina dugg siang loxoy te nik mom bu ya dara yalla wan ko si ay résultat dama mën do dut partager ko ak yeen sama mbokk abonné kon video baa ngi ngeen jëfandikoo ko yàlla def ci barke incha allah ñu ngi lay ñaan ak ngeen yokk abonné yi te ngeen xam ne yeneen secret yu gën a yéeme incha allah rabi dinañ ko andi bu soobee yàlla.